Cheikh moom Serigne Cheikh Fall Khady Gueye moom loo wax mu ne ndongo laa wàcc nga suñ baa ngi leen di nuyu. ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax. nee na mi ngi leen di siyaare it bu baax a baax. ci loo xam ne noo ko bokk. ci loo xam ne nag ñoo ko bokk. ki ko sosoon. nee na ki ko sosoon. lii ngeen ci def. lii ngeen ci def. ba fi fiy nekk moo ko gënal luñ ciy def. ba mu fiy nekk day moo ko gënal lépp luñ ciy def. ba fi jógee ba tey it. fi jógee ba tey yéen a ngi yéen a ngi koy defal ni mu ko bëggee woon. yéen a ko koy defal ni mu ko bëggee woon. def naa sëñ Fallou sunu kilifa yi. yaakaar naa sëñ Fallou sunu kilifa yi. ñoom lii ngeen def ñoo ko daan def. mais lii ngeen di def sëñ Modou. sëñ Fallou ñoom ñoo ko daan def. kon ñoom di sant yàlla bu baax. kon ne ñoom ñii di ñu ngi sant yàlla bu baax. di sant sunu kilifa yooyu. di sant sunu kilifa yooyu. di sant seen njaboot gi. di sant seen njaboot gi. di ànd ak yéen ak ñoom di sant dëkkandoo yii di waa Kaolack. di ànd ak ñoom ak yéen ñii di sant dëkkandoo yii di waa Kaolack. di ko teg ci soxna loxo Serigne Lamine Sylla mii. di ko teg ci loxol Serigne Lamine Sylla mii. mu santal ñu ku fiy jëfandikoo alxuraan. mu santal ñu képp koo xam ne yaa ngi yeewoo Kaolack cee jëfandikoo alxuraan. ñoom ñëpp. nee ñoom ñëpp. yëg nañ ko ni ñu ko yëgee. yëg nañ lii ni ko sëñ Falilou Fall Cheikh yëgee. ba yëge ko nun ko yëgewul. ba yëge ko ñun ko yëgul ñoom ñi teel ko bàyyi xel lool. nee teel ko bàyyi xel lool. teel cee dox lool. teel cee dox lool. teel ko waajal. teel ko waajal. ba su ñëwee. ba bu ñëwee. ñoom ñëpp dañuy ñëw. ñoom ñëpp dañuy ñëw. yaakaar naa ni. nee yaakaar naa ni. lii may wax. lii muy wax moom sëñ Fallou Cheikh. yéen ñi ma koy waxal. yéen ñi ma koy yéen ma ko gën a xam. yéen a ko ko gën a xam. ñoom yéen a jotaay fii. yéen ak ñoom yéen a jotaayoo fii. di wàcce kaamil yi di wàcce kaamil yi. ba mu yegg. ba mu yegg. ngeen woon ñu ñëw. ngeen woo ñu ñu ñëw. te li fi wax. te nee li nu fi wax. ak jataay yi ak jataay yi ku nekk yéen mën na ko. ku nekk yéen man na ko. ndax def lu baax ba noppi. ndax def lu baax ba noppi. ñu sant la gërëm la. ñu sant la gërëm la. ki nga defal. nee ki nga koy defal. ki nga koy yow mi koy def. yow mi koy def. li ngay def. li ngay def. xam nga ni. xam nga ni. am nga ci cantuk. am nga ci cantuk. bu ëpp. bu ëpp. ñu di la ko wax ci kàddu ñu di la ko wax ci ay kàddu ndax lu yàlla santaane la ndax lu yàlla santaane la te yàlla lu santaane ci lu baax te yàlla lu santaane ci lu baax ku ko def képp ku ko def lam lay sante lam lay sante ak lamu la dig ak lam la dig ci lam la digoon ci lam la ci lam la digaloon ci lam la digaloon ba nga jëfe ko ba nga jëfe ko fokk nga jot nee na fokk di nga ci jot kon nag ñoo ngi ñaan kon nee mi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba. ci barkeb Serigne Touba. ak maam Cheikh Ibrahima ak maam Cheikh Ibrahima Fall. ñoom ñu daje woon ci bii bis. ñoom ñu daje woon ci bis bii. ba ba sos ci lii. ba sos ci lii ñu ci sos. muy jëriñ bañ fi nekkee ñoom. muy jëriñ bañ fi nekkee ñoom. bañ fi jógee it muy jëriñ. bañ fi jógee it muy jëriñ. ba fii mu nekk muy jëriñ. ba fii mu nekk nii muy jëriñ. ñu ñaan la mu ñu ñaan yàlla. nee na muy ñaan yàlla. ñuy ñu dund ci biiram. ñu dund ci biir loolu yi. dee ci biir loolu yi. dee ci biir loolu yi. ñu denc ñu fa nga xam ne. ñu denc ñu fa nga xam ni. fa leen taamu fa leen taamoo denc. fa leen taamoo denc. ab taalibe. ab taalibe. ale béréb la boo xam ne. nee béréb la boo xam ni. ñaan guñ la fa mën a ñaanal. ñaan guñ la fa mën a ñaanal. fekk nga fa gu ko féete kaw. fekk nga fa ñaan gu ko féete kaw. muy góog sëñ bi nga xam ne muy góog sëñ bi nga xam ni. wax na ni. wax na ni. kuñ fa def. képp kuñ fa def. mel na ni. mel na ni. kum taxawul boppam. kum taxawul boppam. defe naa ni. nee defe naa ni. njort mënatu la ñaaw ci. njort mënatu a ñaaw mukk ci. taalibi bu Serigne Touba taxaw. taalibi bu Serigne Touba taxaw. ginnaaw ku ne mën na laa taxaw. ginnaaw naa nekk mën na laa taxaw. waaye ñu denc la ci béréb béréb. waaye ñu denc la ci béréb. mu mel ni. mu mel ni. moo la taxawul boppam moo la taxawul boppam. loolu lu lu lu waay di tuddoo. nee na ku sa ruu rot ñu jàpp ne foofu la war a yóbbu. war a yóbbu. luñ la ni ko defee bokk ci. luñ la ni boo ko defee bokk ci. soo ko waxee bokk ci. soo bokk ci. soo ni melee bokk ci. soo ni melee bokk ci. loolu yëpp war na la koo jaral. lépp war na la koo jaral. te loolu nag. te loolu nag. moom lañ fekk fii. moom lañ fekk fii. te ñun ñii taxuñu ngeen di ko def. te ñun ñii taxuñu ngeen di ko def. te tax ngeen di ko def nag. te tax ngeen ko def. ku ne xam na ko. ku ne xam na ko. mooy borom yoon wi. mooy borom yoon wi. ak ñun ci boole. ak ñun ci boole. te fekk leen ci melokaan yoo fekk leen ci melokaan yoo xam ni. yooyee rek la ñuy jéem a roy. yooyee rek la ñuy jéem a roy. ci doxin. ci ay doxin. ak waxin. ak waxin. ak i jëfin. ak i jëfin. ba ba rek. ba rek. la nga xam ne xam nanu. la nga xam ne xam nanu. ni xam nanu ni. xam nan ni. ci leen doon dund. ci leen doon dund. ba dem. ba dem. ñu nekk ca loola. ñu nekk ca loola. ñu fekk leen. ñu fekk leen. yàlla na nu yàlla sëriñ bi dimbali. yàlla na nu yàlla sëriñ bi doole dimbali sëñ Maxtaar si daan la wax ni. sëñ Maxtaar si daan la wax ni. lu waa bañ dee fekk ko ca. lu bañ dee fekk la ca. bu koy na ko na ko baax. nee na ko baax. ndax loolu moom du tàggoo ndax loolu kat du tàggoo te bu ñëwee te bu ñëwee nga jekk nga jàkk jàkk-jàkk nga jekk ak nga jàkk-jekk ñoo ci yem ginnaaw nag ñun danoo am loo xam ni ku ko doon wut it boo ko doo mën naa am wut sa wut ko du la ko may ginnaaw ñun dañoo am loo xam ni ku ko doon wut mën naa am sa wut ko du la ko bu dee taalibe bu dee ak taalibe te mënee su koo dégg ci benn kuréel te mënee su koo dégg ci benn kuréel lu yoonu murit lu yoonu murit boo ko déggee ci yoonu murid ba noppi soo ko déggee ci yoonu murid ba gën a yaakaar ne fa nekk fañ gën a yaakaar ne fa la nekk mooy kër Cheikh Ibra mooy te loolu te loolu mooy tax a doon murid mooy tax a doon am murid kon yàlla nu yàlla dimbali ba buñ ci yàlla yàlla ko yàlla yombalal yàlla na ko yàlla yombalal ba nu am ko ba ko ñun ñëpp te di ko fexe nag te di ko fexe nag yàlla kat bi muy tànn yonent bi di wax ni moo ko gënoon ci ñim bind di wax ni moo ko gënoon ci ñim lam ko defee woon jeexul lam ko defee woon jeexul bu ko neexee bu ko neexee lim bëgg te mënuñu ko lim bëgg te mënuñu ko mënuñu koo ñàkk mënuñu koo ñàkk suñ ko amee suñ ko amee mu amal ñu njëriñ mu amal ñu njëriñ loolee loolee mënuñu koo ama mën naa fexe ban am ko man naa fexe ban am ko te du duñ ci sonne nen ni te duñ ci sonne waaye nag waaw waaye nag sant na bu baax sant na bu baax de gërëm nañ bu baax gërëm na bu baax donte sunu ngërëm. donte seen sunu ngërëm. taxul mu am solo. taxul mu am solo. waaye bis bii nga xam ne ci la lii sosoo moom. waaye bis bii nga xam ne ci la lii sosoo. waris na cee mën a jëriñoo nu ne. nee na waris na cee mën a jëriñoo nu ne. rawatina nag. rawatina nag. ku ñëw def ci loo xam ne. ku ñëw def ci loo xam ni. kuréel boo fekk ay jullit toog fa kuréel boo fekk ay jullit toog fa. ñu di fa jàng ñu di fa jàng ñu ne alxuraan la ñuy jàng ñu ne alxuraan la ñuy jàng rawatina ay murit rawatina ay murit loola loola muy alxuraan muy alxuraan loola njort mën na caa rafet loolu njort mën na caa rafet ginnaaw seen maam kat ginnaaw seen maam kat nett lii wax nañu ni nett lii wax na ni Serigne Touba ko waxoon ni ko. Serigne Touba ko waxoon ni ko. may naa la alxuraan. may naa la alxuraan. te moom mi ko maye. te moom mi ko maye. sañ na koo maye. sañ na koo maye. ndax ginnaaw moo bind ni malakari alxuraan. ginnaaw moo bind ni malakari alxuraan. kooku kon moom moom alxuraan. kooku moom moom moom moom alxuraan. sañ na koo maye. sañ na koo maye. loo moom moom. loo moom moom. sañ nga koo maye. sañ Modou bu la neexee sañ nga koo maye. ku la neex ku la neex nag. jortu naa ni. nee na jortu na ni. yàlla moom. yàlla moom. am na lépp lu nit mën a tudd ci. am aw làmmiñam. am na lépp lu nit a gis ci bëtam. am na lu nit ëpp lu nit mën gis ci bëtam. am na lu nit di yëg. am na lu nit di yëg. loo xam ne lam ci am mopp. loo xam ne lam ci am mopp foofu moom. kon nag moom yooyu yëpp. nee kon nag yooyu yëpp. yàlla nu baaxee ci. yàlla nu baaxee ci. ci lii ngeen doon def. ci lii ngeen doon def. ak ci barke bis bi tax ñu ko def ak ci barke bis ko def. ak yéen ñi ko doon def ak yéen ñi ko doon def ci taalibe Serigne Touba ci taalibe Serigne Touba ànd ak sëti sëriñ Cheikh Ibra ànd ak sëti ñoom ñu koy defal ñoom ñu koy defal euh, ànd ak lislaam bépp ànd ak lislaam bépp ndax euh, lislaam moom mooy loo xam ne ndax lislaam mooy loo xam ne moom lu ñu sélectionné la lu sélectionné la ba nga xam ne dara ba nga xam ne dara lu yàq ni ndax kuy jébbalu kuy jébbalu baat boobu ngay tudd. baat boobu ngay tudd. muy aslamtu lillahi rabbil alamin. muy aslamtu lillahi rabbil alamin. loolu na ku ko wax. loolu nag képp ku ko wax. dafa mel ni. dafa mel ni. set nga ci lépp. set na ci lépp. loo xam ne lu yàlla tere la. loo xam ne lu yàlla tere la. ak taqoo lu yàlla bëgg. ak taqoo lu yàlla bëgg. te sëriñ bi nag. te sëriñ bi nag. ku dem ci loola fekk ko. ku dem ci loola fekk ko fa. dong la ne. foofu rek la ne. nekkul feneen. nekkul feneen. kon nag. kon nag. yàlla na bi téyel boppam. yàlla na sëriñ bi téyel boppam. bu baax. sàmm ndax lii ñun defal mën mënaluñ ko seen bopp. sëñ Lamine sëñ Fallou Cheikh nee lii ngeen ko doon defal mënul ko boppam. yaakaar naa ne ki tax ñuy def. bis yaakaar na it ku tax ñu def bis bi. lii ko ci gënal lii ko ci gënal moom. waaw jërëjëf nee jërëjëf jëf kon nee mu ngi jégalu nag. wax ji bari na. wax ji bari na. ba noppi njëriñ li mën naa. ba noppi njëriñ li bari. mën naa njëriñ li naa mën naa gudd. njëriñ li mën naa gudd. man wax ji mën naa gudd. wax ji ba woo tuul. ba woo tuul. bu fekkee njëriñ li. mi ngi baree noonu. bu fekkee njëriñ mi ngi ci ak man naa am du baree noonu. ndax ndax euh, mën naa wax ne li ma yéene mooy wax lu baax. mais mën naa wax li ma yéene. mooy wax rek. waaye nag ndax dina jub. ndax dina jub. ba koy dégg mën koo jëriñ ba ki koy dégg mën koo jëriñ. moo jafe. nee mooy jafe. nee jërëjëf jëf Fall. jërëjëf jëf Fall. jërëjëf Fall. jërëjëf Fall waaw. li mooy jëriñu bis bi di bi wuutu ki daan def bis bi waaye man mii rek may bàyyi ko ci sa daara di ànd ak gune yi comme nii gune yi toll ma toll fi di ànd ak yow di ñëw fii boobaa léegi ëpp na fanweeri at ndax 89 nit ñu fekk ci kër Baye Mbaye Ngom booba fa la sa daara nekk may ànd ak yow nga ni yabal nii nga yabale gune yi ñuy ñëw di toog fii booba dimul fee màggal gi nekkoon fii nga toog fii daan doon ca loolu sëñ Fall wax na léegi ci suba nii 1974 baalu ko jiitu boo bi ñu ñëw tey ci Kaolack oto ndox la yoroon dal fee mu dal moom sëñ Fallou Fall moom sëñ wax na ko léegi ci suba kon bu demee ba léegi ni doomam yi wuutu ko ànd ko yow alaaji toog lii di doom lii dëgg la ndax bu la neexoon toog fee sëñ Fallou toog yebal alaaji yoro boole koog sëñ Modou sëñ Mourou muy toog fi sëñ Fall daan toog sëñ Mourou muy toog fi sëñ Moussa Amar daan toog ñu ànd seq kaayal bi kaayal bi nag daan doon lekku waaye dara wàññi kuuti nga ànd ko njabootu Kaolack gi ni ko sëñ Fall si nga xam ne kenn desul ku xam Kaolack xam alxuraan ak ñoom kon ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa Seex Ibra sëñ Mourou yaa ngi yàgg si loxo sa waajur yi nee na toll na bi ñu ñëw fii ak ndox bi la yoroon ñu ko mayeloo ndox tey moo jiite bis bi. kon bu len yakamti bu len gaawtu teelu leen ci wut rek ca xam ne ni ngeen di wuté non rek la ñom ne nan leen di wut ñu duggal leen ko ku ne xam am nañ ko kon aw leen fi len seen waajur duggal rek biñ leen yabalee ñew ngeen li len doon def lo def ngeen ko kon fa ñaanal len bax ci sa barke waajur wa ak sa mam ji yeen bi sa borom yeen ci sa kaw sa borom kàttanal len ban tawul lako ba foko bëgg yobbu ñu ànd ak ko fa seen naam xool kat. ñu ñu ngi ci moom. sëñ bi nee nag kon ñooñu ngi ci. mu euh, jaay Badara. am na koo xam ne nga ñëw egsi sëñ Fallou Cheikh woo la ndax li nga doon ci moom ak li nga doon ci bis bi da ngaa fekk sa sët yii li seen waajur doon def ñoom ñu toog fii tey di ko def mu sëñ Fallou sëñ Modou Inda ak sëñ Moussa Mbar àndal ko seen waajur wa jàmbaar ja kenn duutu fàtte mu sëriñ Cheikh Fall Khady Gueye tey jii nag ñoo toog fii tey jàng nañ ci alxuraan ñoo waa Kaolack yii ñeen fukki kaamil ak juróom-ñett def ko addiyi Cheikh Ibra Fall waaye jaar ko ci loxo sëñ Fallou Cheikh mu jot leen ko nga xam ni moo sosoon bis bi muy Serigne Cheikh Fall Khady Gueye jàmbaar ji des xel kom ñoo ngi ñaan ci dara ji Serigne Touba Cheikh Ibra Fall saa borom yokk ay ngërëmam dolli ay leeram bàyyi fi sëñ Fallou Cheikh ak mboolem njaboot gi ba li ko sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ba su borom ngën ko ay ndam am na waaye yenn gën a dooleeku ci barkeb sëñ Touba Cheikh Ibra Fall dégg naa léegi li ñu jaay ba dara wax ci biir néeg ñu ne sëñ Basiir Mbàkke si Abdou Khadir nuyu na la wax ci yow ay kaddu te ba nga wax nee na yow fekk woo ko moom mi moo ko fekke kon faa jërëjëf sëñ la bi ñu ngi jégalu ci kaddu yi sëñ góor ñu ngi jégalu ci kaddu yi bu baax a baax sëñ Talla Wade jëwriñu Cheikh Rafa ci kaw mi ngi ni toog moom it ànd moom bis bi rek ak njabootu sëñ Lamin Jéegi ñoom ñëpp jërë ngeen jëf sëñ Tuubaa Jaw waaw la ci doon jàppale te yàgg koo def lool yàlla it dogal. yàlla it dogal. mu jiitu mu jiitu ji. nga xam ne bu fukki fan ak. nga xam ne fukki fan ak. benn ak benn. ci koor gi yu ne dama fa daan dem. ci koor gi bu nekk suñ fal dafa daan dem. ma daan def suñ ne fukki fan yi ak benn. danaan def bu ne fukki fan ak benn. fukki fan yi ñëw na. fukki fan yi ñëw na. mu jàngal sëñ bi ay kaamil ca kër ga. mu jàngal sëñ bi ay kaamil ca kër ga. jàngi xasaayit. jàngi xasaayit. defal ko sëñ Cheikh Fall Khady Gueye. defal ko sëñ Cheikh Fall Khady Gueye. bu asamaan seetee nag. bu asamaan seetee.

na ma gisoon mu di ko bindee la nga xam ne noonu la ca yéene. na ma gisoon mu di ko bindee la nga xam moom la ci yéene. day mel ni fi mu xamee fi la tàmbalee. day mel ni fi mu xamee fi la tàmbalee. mooy sëñ Cheikh Fall Khady Gueye. mooy sëñ Cheikh Fall Khady Gueye. jaarale ko it ci sëñ Modou Moustapha Fall waajuram. jaarale ko sëñ Modou Moustapha Fall waajuram. jaarale ko Cheikh Ibra. jaarale ko Cheikh Ibra. ñëw ci Serigne Touba. ñëw ci Serigne Touba. ak mag ñi àndoon ak ñoom. ak mag ñi àndoon ak ñoom. noonu la ko cay bindee. nee noonu la ko cay bindee. tasaare ko ci daara yi. tasaare ko ci daara yi. wax ni. wax ni. li ñuy def. li ñuy def. yàlla na njariñ li. njariñ li. yàlla na jaar foofu mu ko waxee. yàlla na jaar foofu mu ko waxee. ba law. ba law. jëm ci ku sukk jébbulu. jëm ci ku sukk jébbulu. yàlla def nag. yàlla def nag. mu génn àdduna daaw. mu génn àdduna daaw. biñ amee ay fan. biñ amee ay fan. kookee ñu daan woo muy xaarim saaxo mi woowaat ma. kookee ñu daan woo muy mu waar ko. wax ma ni ma. wax ko ni ko. la sëñ bi daan def. la sëñ bi daan def. njaboot gi nee nañu. njaboot gi nee nañu. dinañ ko fas ñu ngi ci. dinañ nee na ñu ngi ci. ba ci bëccëg la may woo. ba ci bëccëg la koy woo. wax ma li ma. wax ko ni ko. liggéey boobee. liggéey boobee. sëñ Mouhamed wax na ni. sëñ Mouhamed wax na ni. yegg na yegg na. loolu nag. loolu nag. yéen ñii lañ koy defal. yéen ñii lañ koy defal. ñaan gi ma gis sëñ Abdou Xaadir sëñ Abdou Rahman bind ko ca la mu passeport bi mu am ci li mu koy def. nee na ñaan gi ma gis sëñ. sëñ Abdou Rahman sëñ Abdou Rahman bind ko. wane ni nisër yéen a jooju daa laaj wane ni yéen a jooju daa laaj yaakaaruma ni yaakaaruma ni am na ku dëkk ci réew mi am na ku dëkk ci réew mi nga xam ne ashadu an laa ilaha illallah donc nga xam ne ashadu an laa ilaha illallah donc buñ tàggalee buñ tàggalee mën ngaa bañ a mucc ci googee ñaan mën ngaa bañ a mucc ci googee ñaan kon rawaatina nag kon rawaatina nag ku wax ashadu loolu nag loolu nag ko man mi nee na defulu ko moom mii nee boppam la ko nee na boppam defal ndax bu dem sëñ bi ndax bu dem gis boobu du nangu ma gis ko ci gis boobu du nangu ma gis ko ci ndax danaan ada day defe ni li ma lay bañ a lay bañ a gis nga xam ne sëñ Ahmed laa ko nga xam ne sëñ Ahmed la fay fekk ok nag kon nañ ko ñaanal moom it nee na kookee kon nañ ko ñaanal moom it ñaanal njabootam gi ñaanal njabootam gi fi bàyyi ngir wéyal nañ lam doon def ngir wéyal nañ lam doon def boole na boole nañ ko boole nañ ko ci li mu leen ci li mu leen ñu di def ñu di def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 Daaru Fall TV, la première chaîne qui valorise la vie et l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahim Fall.